waxtaan waxtaan bu am solo euh, mooy ci wàllu poñ bu nekk rek ñu xool fan lañ ci toll parce que président de la li mu ñu wax dafa leer fexe leen ba euh, cérémonie yu mel nii nga xam ne dafa am importance lool ci réew mi euh, ngeen def ci lépp li nga xam ne li moom la ci administration war a def donc tey ci wàllu bu ne ci wàllu wér yaram ci wàllu sécurité ci wàllu hygiène assainissement benn bu ci nekk daal service yi taxaw nañ Euh, pare nañ pour pour pour jàppale communauté Layène pour que euh, réussite bi nekk loo xam ne lii kenn du ko werante ñi ko def li tax ñu koy def mooy li ñu bëgg mooy at mu ne am lu ci amélioré wu at mu ne am lu ci nit ñu ñëw ñu bees ñoo xam ne daawuñ ci ñëw donc population boobu nag li ñuy jéem a satisfaire ci ci ci événement yu mel nii au niveau de au niveau de l'État c'est vrai que Mbolo mu ñu toll fu ñu daje ci ñetti fan fu mu jaar nga am ay disposition spéciale parce que Amna na lu fa ne tey assainissement Ken werantu ko waaye bu non mu toll di dem war war leen a gane ñetti fan mais foo jaar wut ay camion de vidange muy lu spécial Mbolo moomu yëpp bu ñu demee war soxla communication foo jaar def leen ay moyens yu peut-être dafay nekk même si c'est ponctuel pour juste ñu mën jël en charge euh, période boobu donc lolo Moy, événement puisque Tam nañ ko def disposition nañ jël

sur ça ñu mën ci jukki li concerne assainissement avenue Seydina Issa lay Laye bu Yoff ah ay ndox yu fay euh, monsieur le ministre jël na ay matukay néna dina contacter wa ministère de l'hydraulique pour ñu taxaw ci bala appel bi ñeu inshallah mu fété boor ñi wax nek ci côté Ageroute également travaux yi ñu def yépp inshallah bala appel bi jeex dañ ko def mu am ay travaux de gros envergure notamment sur Ngor sur également Yoff moy centre euh, prolongement VDN bi ak également sur sur Cambérène loolu wax nañu ne ñoom bu ñu inshallah appel bi passé 2019 voilà mo dire ñaari dina sotti benen biñu duggal ko si benn programme euh, na prolongement euh, VDN ñuy wax ne également sur euh, deux voies muy problème bu soxol soxol kilifa yi deux voies yi ministre de l'intérieur dina si jël ay de façon ponctuelle pour appel bi waye bu appel passé également ministre de en relation avec maire yi notamment Moussa jël nañ ci ay ay engagement def ay solution provisoire ba entendant en attendant que Ageroute intégré au programme BRT quand kon daal ci tënk ñuy sant bu baax thème bi dafa am processus bu muy suivre pour aboutir commission scientifique moo koy proposé coordonnateur général de l'appel en l'occurrence Seydina Issa Laye bi toog moo proposition yu bëri la moom saa su ne rek day xool thème bi gën a ak jamono boo leen seetloo appel laa yéen da ngeen seetlu thème yi ñëw

muy thème bu am solo ndax ku xol tay aduna bi ak Sénégal ak fu mu dem problème yi am yépp ñak jëflanté le ragalante suñu biir waaso yi diiné yi tariixa yi xéet yi bu dañuy xolanté lu tubaab tuddé en de faïence ndax xamanté wuñu ñu né nak cohésion faw mu am dugalante buñu xamanté rek yaakaar na lañuy ragalanté ragalante amati ndax lo ragal daf fekk xamuloko waye yalla secret bu mu def ci nit ñëpp moy secret jamm ndax ñëpp ci yalla lañ bayiko